Écoutez et vous entendrez. Regardez, vous verrez. Dès son jeune âge, il a commencé à tâter le micro et aujourd'hui, il devient l'un des plus grands animateurs de ce pays. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous présenter le fils de Saint-Louis du Sénégal, le gosse du Mesdames, Messieurs, voici Le prince est là, Kheucha from Saint-Louis du Sénégal. Il a un savoir-faire inouï. Il est éloquent. Jël ki nekk ci ligne bi salaamaaleykum. What's your name? Yow waxal waay. ak oxygène lañ wax. Hmm. waxtaanee ko rek foo. gis naa saal doy na. Fraîche, pétrie de talent, avec beaucoup de style. li la. waaw ah, man sa yére bi rek moo may rey quoi. Hm, yaa ngi toj tiktok bi yow. suba la ma làmmee mu jag jag yi la ma laalat bant. Mesdames, Messieurs, tous les artistes qui font le buzz, tous les artistes qu'on avait presque les artistes qui veulent de la visibilité, de la promotion, passent ite facto par lui, car c'est l'animateur du moment. billaay. yow moo oh, def leen ko ni ko yàlla def mu noppal leen bu ngeen ko deful ni ko yàlla def kat mu crevasse leen ba ngeen tëdd xëcaa yaa fi ne. du lundi au de 11 à 13 sur la 2STV. Ne le ratez pas. raté cette occasion, amis chers téléspectateurs. Je vous l'avais dit, chose promise, chose dure. Meilleur influenceur de l'année des médias. et meilleure émission de l'année 2021 par Raye Music Awards. Mesdames, Messieurs, mes chers téléspectateurs, bonjour à toutes et tous et bienvenue au Parc des Princes de la 2STV, la télévision autrement, la première chaîne de télévision du privé du Sénégal. Où que vous soyez, je vous dis bonjour et bienvenue en ah, ah, ah, bu ngeen may déglu sax en m'écoutant vraiment, vous avez l'impression que Kheucha est tellement content aujourd'hui, euh, ba du sax mën a euh, tout ce qui est en lui. En tout suis tellement tellement tellement content maa ngi am mbégte bànneex ak pour vous accompagner ici au Parc des Princes de la 2STV osons le dire la meilleure émission de l'année c'est 11 Musique décerné na te kontaan nañu lool et c'est grâce à vous amis chers téléspectateurs bonjour à tous qui nous regardent de l'autre côté euh, en France en Italie en Belgique Hollande foofu nga xamante ni moom les États-Unis au Canada de l'autre côté Boé l'Afrique en un mot merci du fond du cœur merci à Mauritanie merci foofu nga xamante ni moom moo di ca Maroc merci Cameroun merci Côte d'Ivoire merci également euh, de l'autre côté foofu nga xamante ni euh, moom moo di ca Zimbabwe foofu yëpp dañu fay si ay afbarinta xam nu koy waxee noonu ñooñu ñëpp dañuy seetaan te am nañu mbégte bu baax a baax a baax pour vous accompagner mbégte bànneex ci ñi nga xamante ni ñu ngi nii seetaan ca Mauritanie wan ni bik marax ba bik marax ba bik marax ba bik Mauritanie salaamaaleykum yéen tam ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay mais également bonjour à tous qui nous regardent de l'autre côté in Gambia. Masekan family, Masekan country. I love you. I love all Gambian people. And I'm so, so, so glad for you. All Gambian people, kontaan naa bu baax a baax a baax a baax ci yéen. Thanks a lot. Thanks a lot all Gambian people. Waaye nag dañ ni peccum bu neexee nday jaay jàpp ca mbagg ja. ay waay waa Sénégal aw ma seen fay. Yàlla mi am fay, yàlla leen fay. Yàlla mi dara tawul, yàlla na leen fay. Ndakaaru Njaay jël Jóob Sangomar. Cees kaay benn dëkk ñaari gaar Saint-Louis du Sénégal ma région ma fierté Louga Matam Kédougou Bakel Kolda jigén ah fatik ah Sédhiou foofu nga xamante ni moom moo di ca Kaffrine Tivaouane Touba fépp fu waay nekk doon seetaan ak doon ma votel ba ma jël lii nga xam ni wax dëgg yàlla moom mooy meilleure émission de l'année au Sénégal am naa mbégte bu baax a baax a baax ci yow te di la wax jërëjëf. yow mi amoon sa yéene di ma ko ñaanal yow mi amoon sa yéene jël sa crédit di ma voteel yow mi amoon sa yéene ak sa mbébét ngir ma remporter li ni mel yal na la yàlla fay kontaan naa gis ngeen boobu ak léegi tooguma benn yoon yóbbu naa ko Kaolack yegg si waat na fii nga xamante ni moom moo di ci Ndakaaru te tout le plaisir est pour moi mais le plaisir est partagé ndax xam naa ni bànneex bi may yëg yéen moom ngeen di yëg kon nag awma seen fay merci du fond du cœur gàcce ngaalaama nag ndax bi bu dee trophée la nii bu dee jëmm ji nii la maanaam man lii ci suuf laa laa liggéey li ci kaw nii yëpp c'est l'équipe de la 2STV waaye rawatina ñi nga xam ne wax dëgg yàlla boobaak léegi maa ngi ànd ñoom bokk na ci sama yaay mi nga xamante ni moom moo di maman Roqeya bokk na ci maman Mané bokk na ci Ngaay Mexe doon ñoo xamante ni ñoom ñooy réaliser daanaka sax émission bi ngeen di gis a chaque fois ma leen ciy bégal ba ngeen mën a kontaan kon nag gàcce ngaalaama dara musul ñaaw ñu bëggal ma seen bopp di ma conseiller tey man bi ma daan ñëw ci ci caméra xaw ma ci woon dara de te mais euh, euh, caméra bi mën na ma fixé fii mu ni yéen ñi ma yéen ñi may xool nii du ma ko xool fële laay xool maman Roqe ma njëkk wax ne ma xëcaa bu la caméra bi fixé am nga retour day ko xool fi xam nga kon maama loolu fàttewu ma ko pour vous dire que loo gis rek dañ la koy jàngal te lépp fii laa ko jàngee kon nag gàcce ngalaama buñ may teg ay affaire may topp caméra bi tey mën naa ni c'est a à l'international Daba ndax moom ba ma tàmbalee ba tey dara ñaaw ci te mi ba tey moo fi sax toog wax dëgg yàlla boo fi nekk loon dama ko xam ne des fois nag damay wax du dëgg mais tey moom li ma la tey li may wax moom c'est très moom moo daan wax naan ma doom nday bu lay bu ñu wengalee caméra bi sax yow jéemal weng ndax boo ko wengee dangay ngay topp système bi maanaam bu caméra bi tëddee nii yow wengalul gis nga lii moom la kii mooy dàbb kii mooy l'international dàbb bokk na ci caméraman yu bëri fii ñëpp a fi jaar wax dëgg yàlla bu ma limee rek juum waaye gàcce ngalaama képp koo xam ni yaa ngi liggéey fii nekk ci wàllu caméra bu ko defee ci wàllu son am na koo xam ni mooy l'international Abel moo gaa sûr ci liggéey bu mucc ayib boo xamante ni def na ko fii di leen accompagner euh, ci yenn euh, euh, li ngeen di gis lépp ci live mi ni live yeeg yëpp mi ngi woon ci suuf ah ànd ceeg Mbarak ànd ceeg Bamba ak équipe bu doy waar boo xamante ni wax dëgg yàlla équipe bu redoutable boo xam ni amul kenn kenn ku leen di xaali xii na son yi day leer lépp day nice maa ngi leen di wax gàcce ngalaam am na ci tamit koo xamante ni moom ngeen di dégg farataal ma naan ko mon ami de valeur l' international alaaji bàcc li mu baax bi moom bu ngeen ko déggee moom mooy mbokkum yaayu dàbb mii ngeen gis nii mu toog bu ngeen gisee tey ma sol tërëy c'est pour vous montrer que booy dem ci guerre il va falloir que nga mat guerre waaw lii ma sol nii tey dafa refléter lu bari dinaa leen ko expliquer le pourquoi tey ma sol tey pour que yéen ñi seetaan aussi mën a comprendre mais alaaji bàcci li moom tam ci lumière li ngeen gis fii euh, ci plateau bi ah sama nekkul sama xarit dong on s'entend au téléphone on se parle tout le temps moom itam gàcce ngalaama waaye nag am na koo xamante ni moom itam du boo xam ni ku ne xam na ni ndaanaan la xam naa ni ma ngay rey sama xarit bi gàttul dafa njool ba leen jaamur bàyyi leen di wax gërëm gaar dafa gàtt gàttul dafa njool. gërëm gaar gërëm kenn moom kenn moom sama xarit bi léegi nag moom gis ngeen ni depuis tout au début. xëy na sax peut-être waa raaya loolu leen tiital parce que dañu gis ci tele loo xamante ni innovation la ñun dañu ñëw indi ci télé loo xamante ni on on on on on. je veux je peux dire que ni musul xalaat wala di euh, di di yaakaar on s'attendait pas à ça en fait di xaar télé ngay gis ñaari nit di ci di di xëcaa di wax am keneen kuy tontu te kooku di tontu du ngeen ko gis yéen sa di dire da ngeen di dégg ay son comme ni ma waxee ni Grégoire mu dugal benn affaire bit nii yéen ngeen reetaan xamu leen lu xew donc là c'est de l'innovation et vraiment je tenais à le féliciter l'international Grégoire moom tam da cee jàpp bu baax a baax a baax a baax naa ko lu ma neex laa koy def lu ma neex laa koy wax tout le temps ni mu mel musut a changé wax dëgg yàlla ñu yàgg liggéey boobu ak léegi dara mu see ñaaw ko nag mon ami trophée bii dama ko jël dénkaat la ko waaw yow yaa ko moom mais da ngay bàyyi mu dóor ci ndax dafa am ñoo xam dama leen dama leen dama leen ko tuddee foo la maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax merci beaucoup également euh, ci yëpp ah ñoom ñi nga xam ne wax dëgg yàlla jàpp nañ ci ku mel ne suma yaay Maram Ndiaye euh, suma papa El Hadj Ndiaye euh, maa ngi leen di nuyu ñoom itam kontaan nañu lool wan nañ ma seen cofeel ci li tax na am na yu bëri yu leen di waajal te di ngeen ko xam yéen sénégalais yi nga xam ni yàqu leen ci dara kon nag moom itam maa ngi leen di gërëm bu baax a baax merci beaucoup du fond du cœur waa digital mu ci mel ni am multimédia le maire moom moom c'est le maire waaw ba ma waxee dama woo boos boos ni ma non c'est le maire ma woo euh, euh, euh, Omar Omar ni ma non c'est le maire kon nag c'est le meilleur digital fii ci booy bi moo gën a taxaw ku kuy booy bu la tiitaralee nii rek yow da ngay am envie dem seetaan ko booy doy waar ay xale yoo xam ne wax dëgg yàlla kenn mënu leen wax sax ñoom ñoom ñoom ñoom euh, euh, euh, doon waaye wax dëgg yàlla kontaan ci ñëpp ah bi yëpp ku ci mel ni Françoise maa koy gërëm merci beaucoup merci beaucoup à maman Aïssatou merci beaucoup à l'international Touré ah, ah, di nuyu ñëpp ñi nga xamante ci doon jàpp bu baax a a xarit euh, euh, euh, Haj maa koy ko kontaane bu baax a baax Moustapha yow itam gërëm naa la bu baax a baax a baax en un mot je remercie l' équipe de la 2STV yàlla mi am fay yàlla leen yàlla fay kenn du yéen ci man kontaan naa xam nga bii tamit beneen trophée la mais dinaa ci wax léegi-léegi nan dem suñu séance d'étirement ndax bii gars yi ko mais nañ dem euh, suñu séance d'étirement daal di yëngal ndaxte tey dara yomb warul yomb te semaine bii euh, semaine de Raya Awards ñi nga xam ne ñoo jël euh, li nga xam ni moo jëm ci l'homme ki nga xam ne moom moo di l'artiste de l'année ci wàllu góor ñi waaye aussi l'artiste de l'année ci jigéen ñi ñëpp di ngeen leen gis ci Parc des Princes ki nga xam ne moo jël révélation de l'année di ngeen leen fi gis et meilleure émission bi nag moom mooy kon nag lépp fi lay xewee donc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 respect ce garçon son qui se prépare davantage le 24 foofu nga xamante ni di ca Fass Gueule Tapée incha allah rabi euh, a koy xaar xale yëpp pour le 24 nag euh, euh, bruit bi bari na loolu doom day ah dafa mel ne yaa ngi ci et que man tam kontaan naa ci bu baax baax baax a baax gré xam dugal raay bi nii mu gën a génn nii gars yi di ko séen waaw lii dafa rafet de ah bi <laughs> kii sëñ ta gré waa sof de ay dafa mel ne am na ku nekk ci ci man 88 bonjour Faye Ndiaye Lam buuru Gédé Tukulóor Allé Racine Samba Ngaari Jamaal loo wax. waaw dégg lii félicitation kontaan ngeen. bu baax a lan la moo xëcca lii lan la boo lakkee dëkk bi tubaab bi jàpp la lii lan la demal. lii lan la moo xëcca lii lan la. wala kay dëkk bi tubaab bi jàpp la lii lan la. yow ma naan yow gis nga xin ñëwal yow rasa xin demal. gis nga rajo ki teg ki teg rajo tey trophée yi laay fóol kontaan naa noo def yow. déjà waaw man dama xaw a gisoo sama voix bi nii dangeen di xam ne xaw naa fatigué tuuti rek mais dama koy gérer. waa ko dama koy gérer ba ngeen kontaan ndax bu ma sonnee ngeen sonn te bëgguma sonn. gis nga de man maa ngi ndeysaan ndeysaan mais nag lépp yéen la est-ce que xam nga émission bi tey bu demee ba jël lii seen appel yi ci la bokk. Ah, waaw ndax ndax ndax ndax ñoom dañu li ñu gën a remarqué nee nañu mooy émission bi moo ëpp appel ci ci émission yi daw ci Sénégal yëpp et c'est vrai ah et on, on nous appelle de partout on nous appelle de partout ce qui nous fait vraiment plaisir amuñu seen fay wax dëgg yàlla franchement c'est normal parce que ñun tamit béykat yi ñu nag yàgg suñu crédit noonu par zéro ndeysaan yow yaay yow yaay a mën a tax nga lépp. ndeysaan ndeysaan di jënd caisse di la oo di participer. ndeysaan dèjà li na ëpp na li ñu def si yow. ndeysaan te man man bëgg naa ci yéen en tout cas awma seen fay yaa yi wootee fan. Saint-Louis Amina. Amina borom Saint-Louis du kontaan naa de. man xam naa ni kontaan nga sax Amina yow xam nga ma xam non xam naa ni kontaan nga. a waaye man itam bég naa bu baax a baax naa lu ngeen bég benn rek bég naa ko fukk. ah ñoo la gën a jërëjëfati naa merci beaucoup pour l'appel Aïcha Mangoogu yi jub na dañuy daal di tàmbali la lundi et comme tous les lundis xam ngeen ni nouveauté yi lan leen di wan seen kër di seetaan mën leen accompagner avec de la bonne musique ngeen mën a kontaan di fecc di foo di kaf di ree je vous rappelle que aussi euh, ñu ngi jëm ci événement boo xamante ni euh, ça reste que jours ou jours je peux dire euh, ce samedi incha allah rabi au musée des civilisations noires Dajju sera Dakar en live et qui yéen ngeen mere ma yéen a baax Kaolack yéen a baax Kaolack yéen gore Kaolack yéen a bëgg nit Kaolack yéen a sikk ay nit jàmm Kaolack yàlla na fa jàmm yàgg yàlla na fa képp kuy jeune tekki ba teral ay way juram kontaan naa ci yéen lool ni ngeen ma accueillir wax dëgg yàlla man ah kontaan naa de man bi ma yëgee ci seen bi noonu rek yéen waa Kaolack ni ngeen def rek yéen yëg yooxuma ba ma kontaan am frisson sama yaram bi di daw waaye seen jàmm yàgg waaye kontaan naa ñu nar ñu nga xam ni euh, moom moo di Evans ànd ceeg Wally Balago Seck c' était vraiment euh, une soirée boo xamante ni inoubliable lañ ko mën wax ndaxte euh, sénégalais yi ñëw nañu en masse Kaolack waaye ñëw nañu ki nga xam ne moom moo di Latou Diop dégg moom it tuuti lul way na ca way yu neex ba wayaleel ma sama raaya bi nga xam ne dëgg yàlla kontaan ci lool lool lool na mi am fay yàlla na leen l' 33 841 23 34 euh, ci kanam tuuti aussi euh, dinaa leen wax point de yi nga xamante fa ngeen mën a jëndee ticket d'adieu pour ñëw musée des civilisations noires ñu daje fa daal yëngal monsieur Grégoire ñu dem séance d'étirement ñoom bi ñu bëgg ànd ceeg Mbaye si Ndiaye ki nga xamante ni moom moo di Fallou Benjamin ak

pare 88 628 14 13 bonjour salaamaaleykum allo allo allo allo. il ou elle est parti mën na ñëwaat ci 88 628 14 13 33 841 23 34 seeni trophée euh, ñu ngi nii dégg ngeen ni ma leen ko waxee Raaya Musique bokk ci euh, meilleur influenceur média de l'année waaye euh, bu ngi nu mu mel rek yéen la kon nag woote leen ci 88 628 14 13 gré comme ni ma ko déggee démb sama yaay jooju nga xam ne moom moo di Bijou Ngoné moom itam gàcce ngalaama ndax wax dëgg yàlla bu ma yegsee tey ci kër gi c'est grâce à elle moo yëkkati téléphone am ni ma xëcaa ma ne ko waaw mu ne ma dañu bëggoon ay éléments au niveau niveau de la 2STV yi euh, kon nag euh, yaay booy euh, trophée bi yow itam sa trophée la sama yaay ma Bijou Ngoné maa ngi koy kontaane bu baax a baax bu bu ma fi amee lii tey mën naa ne c'est grâce à vous ndaxte yow wax dëgg yàlla yaa yëkkati sa téléphone woo ma ci kër gi te dara mu see ñaaw kon yaay booy maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax et a fait un peu benn témoignage hier dans confrontation ñu xool ko gré et on revient c'est parti j'en di ko féliciter parce que. waaye euh, surtout. Raheem waaw fa laa bëggoon duggaat ah, euh, muy ndaw boo xamante ne euh, wax dëgg yàlla. Mm-hmm. xale la boo xamante ne mi ngi ci yoon yàlla na ko yàlla may. mu gën a am yeneen raaya. parce que euh, mérité ko wax dëgg yàlla xëcaa kuy jaamu liggéeyam la. Mm-hmm. émission ah, émission boo xamante ne mm-hmm. maa ngi koy fàttaliku su ma juumalee première édition bi moom lañ ci àndaloon. Mm-hmm. donc euh, euh, moom it ci team bi la bokk ñu koy gërëm bu baax a baax ci raaya bi nga xamante ne gañe na ko la 2STV bi c'est comme ça à chaque fois confrontation meilleure émission xëcaa fii. mais de même ainsi de suite ainsi chaque fois ngeen di bàyyi xel yéen ñi nga xam ne yéenay téléspectateurs yi di ñu a dooleel ba tax ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoom la ñu tabb ñu naan ñun ñooy ñoom number one donc alhamdulilah wax dëgg yàlla ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax yéen mbokk téléspectateurs yi ah Kheucha ñu ngi lay féliciter encore di féliciter ñëpp ñi nga xamante merci beaucoup maman Bijou Ngoné maa ngi koy gërëm man itam bu baax a baax a baax euh, pour ces mots vraiment euh, dugg na ci sama biir xol sam me va droit au cœur maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax liggéey rek am solo comme ni mu ko waxee c'est vraiment beau euh, ngay liggéey ñu la ci dara jaaleel dara ak lu mu mënti doon mu doon trophée boo xamante ni wax dëgg yàlla lii Euh, kenn natable ko ci Sénégal parce que képp kuy artiste bu mag fii ci Sénégal euh, defe naa ni yor nga ko te gàddu nga ko muy sa clip wala lépp loo mën a def euh, kon nag c'est quelque chose boo xamante ci sama carrière li moom a ci gën a marqué loo xamante ni la man pour man c'est de l'or ah ah c'est pourquoi sama xol ko tibbee maa ngi ciy gërëm képp koo xamante ni jàpp nga ci ba ñu indi ko fii tey moo tax semaine raaya bi képp ku ko jël itam di ngeen leen gis gi nga xamante ni moom li ni militaire la ñuy gagné li nga xamante ni raaye ak ci catégorie bu mënti doon en tout cas gërëm bu baax baax sama yaay jooju bi jungoone di ko kontaane encore une fois mbégte ak bànneex rek laa euh, ci loolu nga xamante ni toujours euh, gëne ci 88 628 14 13 alaaji dem seeti nga xamante ni moom moo di légère ba vous savez le pourquoi j'adore cette que dafa mel na dama gis sama bopp regardez et écoutez vraiment les paroles de ce garçon Kiki Moteleba on va un petit peu euh, euh, euh, dem ci yeneen monde de la musique pour dé, euh, découvrir d'autres jeunes talents regardez ce garçon et écoutez c'est comme s'il chantait Richard Gracie c'est bon tekk ci suuf J'adore cette euh, cette chanson vraiment de Tiki Moteleba. Merci beaucoup. 88 Allô Adja Dia Aïcha mën na ñëwaat ci 88 628 14 13 mayante leen battement sinon rek ligne bi day xaw a saturé tuuti te xam naa ne ñëppay bëgg dugg itam euh, ngir wax seen xalaat euh, ci li ni mel Aïcha mën ngeen def nank rek euh, jël seen battement nank kenn ku ci nekk rek bu duggee ñu mën a waxtaan mu yaatu merci beaucoup Grace cette partie de la chanson j'adore quand je suis arrivé les petits sont demandés qu'est-ce qui se passe oh tellement le petit a beaucoup d'inspiration pour déranger prenez position pour danser prenez merci beaucoup

maaleykum salaam. waa mais kii kan la. Adja depuis Joal. Adja Joal comment vas-tu. Uh-huh, bien et toi. ba yaa ngi cool. Adja. oui. ma ni ba yaa ngi cool. maa ngi cool ah kontaan rek di la féliciter. Ndeysaan merci beaucoup Adja. Ah, macha allah trophée moom da nga def waaw mais lépp yéen la nag ndax yéen a ko voté yéen a toog seen kër yëkkati seen ay téléphone di woote. ba mu tax ñu mhm. nominé woon ñu ci nee bu ma ko ñàkkoon itam ah, wax dëgg yàlla ah, le fait que ñu boole la ci biir rek mooy wane ni yow am nga loo prouvé. donc mhm. yéen ñëpp ñëpp maa ngi leen di gërëm. ok ñu ngi du yéen Adja kontaan naa de ba xam nga loolu. ok mais wuy ma seen seen xam nga na laa ko bëgg xamee ah ci seen ay vidéo on serait chez vous fi ngeen toog def leen seen ay vidéo léegi léegi ma joxe numéro bi ngeen yónnee ko ci dégg nga ma. d'accord incha allah kontaan nga ci loolu. kontaan naa man kontaan naa Aïcha ñu doxal kon merci beaucoup Adja. ok merci beaucoup. Aïcha merci beaucoup from Joal waa maa ngi leen di kontaane bu baax a baax a baax di leen jox seen ma la Tanu. ah. j'entends mal. allo. waaw maa ngi lay dégg nga ni la kan. Sanu Samb. Salu wala Satu. Sanu. Sanu maa ngi lay nuyu bu baax a baax fooy wootee Sanu. Baaxul. ah. Baaxul. Baaxul. ah Baaxul Baaxul. waaw ah dëgg la Baaxul yéen ak waa Baaxul ñoo bëgg cere. na nga def nag. maa ngi fi. naka matinal bi yaa ngi géré. maa ngi sant bu baax. di kontaan ci man wala kontaanoo ci man ah. ma ne maa ngi sant bu baax di am mbégte ak contentement. ndeysaan lépp yéen la lépp yéen la man itam am naa contentement ci yéen bu baax. ndeysaan ndeysaan. allo yal na la ndam di jig. allo jig waa day si ak ñi fi topp yëpp même Grégoire. ah ndeysaan waaw waaw ñaanal leen ko tey moom Grégoire lu leen neex ñaanal leen ko ko wax dëgg yàlla xale bu mu liggéey la. <laughs> alo xanaa dama kontaan ba mënu maa wax. xam naa loolu xam naa loolu man du man depuis loolu dama kontaan ba maa ngi nii wax dëgg yàlla euh, euh, tey tey tey j'ai perdu même les mots ah. xaw ma sax lan laa war a wax. billaay yàlla mi am fay yàlla na leen yàlla fay en tout cas mais préparé leen seen ay vidéo on stress yu toog ngeen woote ba tey may gën di kontaan di gën di bég. ok. merci beaucoup merci beaucoup. borom baasul kontaan naa. ok merci merci on termine avec cette partie là de euh, Dadju euh, Gré partie bi j'adore Ta gueule.

Allô, Richard

Kjeri kakala og det nekna Bude jeg i nax sax bakna Jeg sama chon mai se jaga Kenin kulu yo mi baguma Mas vinyo njata gisela mir Danga jongen chigor yo mir Uma wakon linechi yo mir ay eh, j'adore cette partie la fi mu dugg see dafa neex gi de 88 628 14 13 salaamaaleykum. allo. oui bonjour. ah Soufla ça va. waaw man ça va bien yow nag ça va. ah maa ngi ci jàmm. yaay cool yow looy reen yow da ngaa kontaan xanaa. <laughs> dama kontaan. waaw lu la kontaan loo sàcc nañ sama gaz ndax yow. damay seetaan ñu sàcc sama gaz sàcc sama télé ndax yow. dama laa bëgg. yow kañ la loolu yow. billahi dama toog di la seetaan daa heure taal añ jot may dem di taal ñoo fekk ñu sàcc ma xamal leen man lii déggoon naa ka ah, dégg naa sàcc gi léegi bàyyi nañu euh, sàcc guddi sàcc heure onze treize ndax xam na ni nit ñi dañuy concentré wu loolu baax na nga yaakaar Ismaïla dama wan ne nii waaye xoolal ndekk rek ma toog di la seetaan ndeysaan yow koo bëgg yow xanaa yow nee ma lii lan la mo xëcaa lii lan la boo lakkee dëkk bi tubaab bi jàpp la lii lan la demal lii lan la moo xasaa lii lan la soo la kii dëkk bi tubaab bi jàpp la lii lan la. maanaam yow gi sax ñëwal yow rek sax ñu demal gi dem rek teg ci jéggi jéggi jéggi jéggi ku daas. artiste Bamba ba kontaan nga. kontaan naa kay. man itam kontaan naa bu baax yàlla mi am fay yàlla leen yàlla fay. amiin amiin waaw waaw waaye lay ñaan a tuuse tuuti. xoolal ku ñàkk fayda xoolal ku ñàkk ma xaw a tuuse bu ko faale de dafa bëgg bokk te duñ ko ci boole. daa ñàkk fayda ku waa xaar yàlla na xaati. waaw amiin ndeysaan ndeysaan ndeysaan. amiin dama bëgg. wallaay maa leen raw wallaay maa leen raw. parce que nag je suis l'animateur de la jeunesse que toutes les générations suivent ça on peut le dire aussi ah. kontaan naa man tam kontaan bu baax a baax ndeysaan sénégalais yi sénégalais yi daal yàlla na la yàlla yàlla na la yàlla fay kontaan naa kontaan naa mais ku mais mais Grégoire yaa bi dégaatal dégaatal ñu demaat ñu demaat Gré c'est parti pop pop pop le couple maabo yi sont trop forts Gré xam nga ma rey changé monument bi def ci man ak yow loolu dafa garaaw mais d'où vient cette inspiration le fait de changer le monument ñoom ñaar ñu nekk ci loolu c'est c'est c'est c'est c'est exceptionnel ah si vraiment tu penses à la personne que tu aimes da ngay xalaat imagine toi Grégoire yow sa gàttaay bi ils sont tellement tellement tellement euh, j'ai même pas les machallah euh, actuellement c'est disponible sur YouTube allez liker commenter partager la toute nouvelle vidéo du groupe Mabo le couple vraiment boo xamante ni ñu ngi lay di kontaanee xoolal kii yow da nga neex en tout cas di ko a a le couple Mabo actuellement ñoom itam génne nañu titre bi ça fait presque euh, benn jour ah defe naa mi ngi toll ci trois cent et quelques mille vues actuellement ça déchire ça cartonne sur les réseaux xale yi dem leen ngeen TikTok ci bu fekkee am ngeen ku ngeen bëgg mën ngeen ci TikTok bu ngeen ko amul nag mel man rek toog euh, di xaar ba am ku ku ngeen ku ngeen ko defalandoo man dama lu ma neex laa gën a lu ma saf laay wax euh, cette fois bi nga xam ne wax dëgg yàlla il se prépare le 88 628 14 allo. allo. oui bonjour. bonjour. waa mais kii kan la yow. Mbayang la. ma ne kii kan la. Mbayang Mbayang. Mbayang Mbayang loo sant. Bey laa sant. Mbayang Sey. Bey Bey. Mbayang Mbayang Bey maa ngi lay kontaane bu baax a baax fooy wootee Mbayang. maa ngi wootee Touba. maa ngi lay siyaare di siyaare waa Touba Mbayang ba kontaan nga. kontaan naa bu baax ok Grégoire foog nga foog nga foog nga foog nga après xool son parti waale boobu fu mu naan mbaa kontaan nga gis da ba ngeen dal kontaan loolu noonu su ma nee mbaa kontaan nga rek nga teg ko ci suuf loolu après foo ñu wut ko Mbayang. Mbayang. Richard Richard bég naa. ah. bég naa sama xol bi sedd na. ndeysaan man tam sama xol sedd na trop trop trop Mbayang. Mbayang. allo. waaw lu seddal sa xol. ndeysaan dama laa bëgg dama ndeysaan fii la rawee mbayang koo bëgg bëgg na la maa la raw pire dégg nga ma. ayca Mbayang borom Touba ñi ngi koy kontaane bu baax a baax moom itam di nuyu waa Touba euh, xamante ni aux alentours ñu ngi toog di seetaan émission euh, bi leen di accompagner de 11 à 13h euh, dem xooli ki nga nag moo xew ci jamono l'homme du 18 foofu ca King Fat Palace l'entrée c'est à 50 000 francs sortie d'album de l'international kookal la ñu ne ko actuellement il est en de déchirer avec vraiment cette chanson qui vient de sortir à peine ilaha illallah yokkal ma tuuti tuuti volume bi gën a tànk euh, ma gën a kontaan Omzo Omar maa lay kontaane bu baax a baax a euh, di la jox sa wàccuwaay l'international Khadija maa ngi lay euh, siyaare yow di la béggee bu baax a baax gëré dinañ ci ñëw léegi léegi avant ñuy ñëw ci li nga wax léegi dinañ ci ñëw donc très rapidement ñu dem jël ki nekk ci ligne bi 88 deuxième partie bi jot gëré salaamaaleykum maaleykum salaam ah. oui bonjour très cher tey tey da ngaa nuróog waa ISRA ah. moo ñëw ma ne tey da ngaa ndool sek damaa yaakaar ne Waly moo ñëw di di def émission. nga ne tey damaa nduróo. Waly Waly. tey damaa nduróo Waly. waaw tey eh, damaa yaakaar Waly moo. Waly maa ko dàq sa jërë yow nga ma ay da ngaa nduróo Waly Waly man. Waly Seck borom xale bu xale bu xale bu xale bu xew ci jamono. waaye dama ni Waly maa ko dàq sañ sa nga ma Waly gi. yow yow yow te waaj la waaye xesaa sama doom bi xesaa sama doom bi woo naa la yooyu yëpp yéen lay nax rek mais xam na ni man li may gaam noonu bay ñëw ci seen moom dama koy dama koy waali waali du moroom kenn waali du moroom kenn waaw yow wala la sa jour ma daax sañ yow yow wér nga yow waaw yow yow yow doomu waali nga waaw bi bi xesaa sama doom ma woo naa la waaw xamul dam muy def lool xamul dam muy def lool ah. ah day bañ ma ne ko mais mais gars yi xam nañ ni maa la dàq sañse léegi yéen da leen di jaar ci suuf naan xëcaa sama doom jeeg lii ak laa mais xam nañ maa ko dàq sañse nuyu naa la. lay fay maa ngi lay fay yaa ngi am jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. jàmm ji fooy wootee ak noo tudd. Eh, maa ngi boodi law boodi laaw. ayra laaw. boodi laaw nga naan ayra laaw. ah mais. waaw loolu def boodi laaw. tey boodi laaw fu mu nekkee xanaa côté ayra laaw. waaw côté aérelaw ah. moom aérelaw mooy kii. Ah, waaw a wax ni waaw parce que aérelaw laa mos dem man joué naa aérelaw. <laughs> ñëw nga nga Dunga. ñëw naa aérelaw boobu boobu maa ngi gën a nekk. la Dunga de gis naa la Dunga. kan laa àndaloon aérelaw. aérelaw waaw rek. dëgg la wax nga dëgg ndeysaan wax na lu yàgg nag ah loolu c'est c'est c'est vraiment mes ah, bi ma gën a nekk xale mais maa ngi kontaan ci yow yaa ngi am jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. ba yaa ngi am euh, tawféex waaw maa ngi maa lan nga wax ci raaya musique bi ñu gagné. dëgg lan nga wax ci raaya bi nga xam ni moom la ñu gagné. raaya ban. raaya bi ñu gagné nii lan nga ci wax doom nday ibil sa noppi nag yow it. <laughs> jox ma ko jox ma ko. ma jox la ko. <laughs> waaw. waaw dinaa la ko jox amul problème ndax yéen ko moom yéen a tax ñu gagné. waaw maa ngi lay xaar kontaan naa ci yow bu baax a baax a baax damay ñëwaat léegi ak ambiance bu day waar ak yéen. Hmm? ma ne dinaa ñëwaat léegi ak ambiance bu doy waar ak yéen. waaw amul amul benn problème lay xaar damay toog fii a wax déglu déglu déglu déglu. tekki ku fi bëgg tekki di réew mi di nga leewatoo leewatoo leewatoo leewatoo ba tas pour tekki waaw ah, ci ci leewatoo lañ nekk ndeysaan billaay ndeysaan Gré wax dëgg yàlla li ngay teg nii neex na loolu suba suba suba ci xëcca loolu nag da nga ko loolu nga war indi indi loolu looloo bari 88 628 14 13 ñu jël ki ayca kooku dem na mën na ñëwaat ci 88 628 14 13 merci beaucoup euh, kooku nga xamante ni moom moo di Kane Diallo il se prépare davantage le 18 euh, foofu nga xamante ni euh, moom moo di ca King Fat Place l'entrée ici à 50 000 francs sortie d'album de l'international ki nga xam ni moom moo di l'international Kane Diallo incha allah ñu ngi koy xaar ah bés la boo xam ni ñëpp ñëpp ñëpp a ngi koy xaar kan. Euh, na sa xel dal ndax wax yàlla xale nga boo xam ne mën nga way am nga respect ci ñëpp te kenn du ko dégg ci lenn kenn jàlloo international merci beaucoup alors mën na dem page publique bu noppee nag bu ñëwaatee ci ambiance bu tar bi la ñuy ñëw avant nag sama invité de marque di ñëw ak sama invité d'honneur dégg nga euh, si c'est bon ñu dem seetaani page pub et on revient c'est parti boo yaakaaree ni publicité yi tey lay gën a dag euh, euh, gàtt donc jour boobu lay gën a gudd ah waay décembre ay ca la a ah, ngi leen di événement yi nag dafa bari gré gis nga li nga li nga fi teg wax li ma waaye yëma ci retenir bokk na ci kat jàll bi koy waxee léegi-léegi ah, bokk na également ci ki nga xamante ni moom di Elzo Jamdong moom itam il se prépare ah, bokk na ci ki nga xam ni moom di Bastion le 1er janvier Ibro le 25 foofu ca Parcelles waaye itam Ngaaka Blindé un événement de la décembre à vivre sur cette antenne de sax numéro euh, numéro leuse mais dafa mel ne xale yi dañ ko yor ba pare euh, kon ma xool on serait chez vous doog a dugg ci ambiance bu tar bi laata may euh, dugal sama première invité moom itam mu ñëw ñu waxtaane lu yaatu ñu xool on serait chez naka la xale yi toogee c'est parti mmh. la 2S Tassaaw ñoo la bëgg bàkk Serigne Saliou ñun la Bamba ñëpp ñu ngi lay déggee laaj chaque jour yow ñu seetaan mooy treize di la béggee di la béggee lu bëri bëri sa toro bi boo ko jëlee yaa moom boo ko jëlul yaa moom danga kaa yaloo fi ne fii yaa fi ne di jéey Eva Petit Dore sa tool may bëgg fii di Kheucha waaw këy ba mu am jom ñoo la ñuy seetaan. ah je vous auto di félicitation mooy loolu noonu tu le mérites mooy loolu parce que chaque jour à chaque fois dañuy bégal. attention encore. merci beaucoup ça fait énormément naa ci sénégalais le monde entier jërëjëf préparé waat leen seen yeneen vidéo on serait chez vous euh, c'est sur le 77 866 02 43 77 866 02 43 ngir euh, ngeen euh, a <laughs> wallaay kontaan naa ndeysaan dama kontaan ci xale bi day liggéey daal gis nag bu la fayee nii da ngay kontaan da ngay kontaan xale bi ma invité tay moom. dama kontaan ci moom yàlla rek yàlla rek a ma seede ma ngi koy gërëm bu baax a baax Facebook chéri Khadija xam nga ñëw ci yow 88 628 14 salaamaaleykum. allo. allo. oui très cher. allo. oui. waaw très cher naka mu. est-ce que mën nga wàññi sa télé s'il te plaît. wàññi naa ko. non am na ñuy wax foofu nee la ñu noppi balaa may balaa may exagérer. da <laughs> ngeen maa yabaate nag léegi kër mën naa leen noppi bu buñ noppi buñ noppi nañ wax allo <laughs> waaw yabaate de ngeen ni kër di wax man leen nu noppi waaw mais noo def copain allo ayca ñi ngi koy gërëm bu baax a baax mën nañu ci 88 628 14 13 numéro bi ngeen di yónnee 11 13 chez vous bu sama artiste bu ndaanaan bi taxawee fii dinaa joxewaat yeneen vidéo mooy 77 may teg dafa am ambiance trop Grégoire lii dafa am ambiance lool 77 866 02 43 77 866 02 43 ayca ci ngeen di yónnee seen vidéo 11 13 chez une très belle chanson qui vient sortir pour vous décompresser encore une fois mes chers téléspectateurs regardez Alaaji Bathily 88 628 14 13 salaamaaleykum allo. allo. oui bonjour. ça va Kheucha. ça va bien et toi. ça va bien. ça va c'est comment. wala Fatima. ah. Fatima. tu nous appelles d'où Fatima. Yëmbal. Yëmbal. Mhm. ani waa Yëmbal Fatima. ñu Fatima. bilaay kontaanee si yow yow. lu tax kontaan yéen. parce la ma def Fatima. ci xol bi xanaa. sa biir xol. war na yàlla. est que dëgg la ci yow. bilaay walaay. kon nee ma lii lan la moo xëcaa lan la boo lakkee dëkk bi tubaab bi jàpp la lii la demal. lii laa la moo xasaa lii laa wala kay dëkk bi tubaab bi jàpp lii laa Fatima yow gi saxin ñëwal yow ra saxin demal gi te ra tet ki tet ra tet ki tegit tegit foo bëgg ma tëjee Fatima ah foo bëgg ma tëjee xafa squelette bi ma nekk ni baaxul baax na <laughs> maa ngi lay kontaane mais am naa mbégte bu baax a baax laa bëggoon nag ah numéro bi laa bëgg sama numéro téléphone waaw maa yow tamit looy doy sama numéro yow tamit ah jox ma ko rek nag dama laa sopp trop ah Mm-hmm. ñuy wootante man a yow di déggante ak di messageante loolu nga bëgg waaw waaw parce que dama la bëgg moo tax ah waaw ba kon bàcci dina la jox ci suuf ah ok d'accord. am na ku ne ma waa Kheucha lu tax bu la laajee sa numéro ne ko dina ko jox ci suuf ma ne ko loolu la koy joxee kaw lu ñuy joxe kay dañ koy joxe ci suuf nga ma ki sëñ Touba Sénégal moo neex ay jegere ñu xooli seeto seet abi euh, Ndour mi nga xam ne génne na ko ànd ceeg l'international Alioune bay Deex waaye itam sama yaay ji Ndiolé Tall nee na ma Kheucha gannaaw suba la ma wax wala wala waxu guma jour yaay ma noppi nee na ma maa ngi génne titre bi te fii laa ko bëgg a joxe en exclusivité sama yaay Ndiolé Tall j'adore j'adore cette chanson merci beaucoup à l'international euh, ki nga xamante ni moom moo di Abindour en compagnie euh, de l'international euh, sunu père boobu nga xam ne moom moo di Alioune Mbaye Nder waaye sama yaay ji njole ñi ngi xaar bi xam nga bi lu mu tudd waaw moom lu wax ni taa yi sax ci anglais am nga lu muy wax de you know what I'm talking about you know what I'm saying américain bi I got you <laughs> yàlla nga gudd fan 98 98 14 13 salaamaaleykum. maaleykum salaam ça va. oui ça va bien et toi. ça va. lan la da nga xaw a sedd. non du dara damaa kontaan rek. sa xol sedd na ci man. bu lu tax sa xol sedd yow. non dañ laa bëgg moo mais est xam ngeen lu ngeen ma bëgg-bëgg xale bi ma indi yéen ni ngeen ma bëggee nu ko raw ngeen ko bëggee. ah barki alxuraan xale bi xew ci jamono ma l'artiste de l'année di quatre ah. trophées la gagné quatre xam nga quatre trophées. Hmm. wallahi azim xale bi ñëpp a ko bëgg macha allah mën na waaye ne ko waxal macha allah te di ko ñaanal gudd fan weer waxal waxal yàlla na ko yàlla may gudd fan ak weer. waaw bu ñëwee léegi nag di ngeen ni ay waay mi ngi nii yow Kheucha wax na dëgg préparé leen seen vidéo on serait chez vous parce que dama ko koy tegal léegi-léegi ngeen wax ay témoignages ci moom dégg ngeen d'accord kontaan naa ci yow merci beaucoup merci fekku may waa Diourbel nag waa Diourbel pourtant dama leen koy may de ah. man war naa jouer Diourbel hmm, ma damay ñëw ci waali bi Diourbel ah. maa nga fa yaa ngi koy waaj kon jeex na maa nga fa incha allah Ah, na sa xol sedd kontaan na merci. merci pour l'appel. ñi koy gërëm di ko kontaanee bu baax a baax alors les amis euh, trophée bii ngeen xamante ni gis ngeen ko lépp loo xamante ni rek tengo war indi vaar ndax Grégoire dañoo nekk ci réew moo xam ni foog ngay indi preuve di wane loo xamante ni euh, euh, du loo du du ay naxasaay wala loo xam ni dañ ko wax rek teg ko lépp loo indi rek indi ci preuve moo tax ñaa ba mu neem ñaa preuve daf ma neex ndax lépp lu mu wax rek da ci teg preuve kon nag raaya bi ngeen gis dafa am koo xamante ni moom moo koy jox sénégalais yi mu doon un jeune boo xamante ni euh, euh, vraiment war nañ ko soutenir waaye itam war nañ ko jàppale artistes yi yëpp fii ci Sénégal xam nañu njëriñu trophée bii xam nañ ko artistes yëpp waaye moom dafa doon nit koo xamante ni euh, du dem ci kenn di la laaj mais nit yi bu nu gisee wax dëgg yàlla muy promouvoir li nga xam ni moom moo di musique sénégalaise et un peu partout dans le monde xale nga nga liggéey benn tube yaas xam na li may wax nga daj ci lu ne liggéey ci lu ne fin d'année jot ñu jox la raaya ak lu mu mënti doon même bu dee potu ndaa la dafa neex ci xol day seddal xolu artiste da yokk jom te moom mii li muy def nii amul lenn lu mu ci séntu bëgg naa nag ñi nga xamante ni ñooy yor euh, le ministre la culture mu gën ci jàpp mu gën ko teg ndax jàmbaar la gone la goo xam ni wax dëgg yàlla bi mu ñëw léegi bi mooy septième édition euh, euh, man je crois que bi mooy sax première am au niveau de la dinaa ko laaj léegi léegi ci tontu Souleymane ma bàyyi la yow itam nga nga nga dugg si mën a waxtaan ak sénégalais yi ñu wax leen ci yan critères la ñu amee trophée bi ak artistes yi nga xamante ni ñëpp ñoom ren euh, ci ay trophées su lay euh, mën nga dugg si euh, ci Parc des Princes laataa man may taxaw ci sama place bi xam ni su ma bëggee changé fii laay changé ah, di ñëw moom moo ki nga xam ni moom moo di moo dirigé li ni di Raye Music Award bi xam ni sénégalais yëpp kontaan nañ ci am nañ ci mbégte ak bànneex mën nga taxawee noonu sa caméra wa Ngogu moom mooy As Malick mi nga xam ni wax dëgg yàlla moom itam yàqu ci dara maa ngi koy gërëm Souley ma nuyu la téléspectateurs yi nga xam ne ñoom itam ñu ngi ni seetaan. Richard maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. maa ngi ziar ñi ñuy seetaan yëpp. di nuyu téléspectateur yëpp. ah ma teg ko nii ndax dëgg yàlla ci yow la jógee. waaw ma delloo ko ci yow ba pare après ma jëlaat ko. waaw am benn problème. <laughs> mais ba doo ko nangu yóbbuwaat ko. non non non li <laughs> ñu ngi koy kontaane bu baax a baax bàyyi la ak téléspectateur yi. donc di leen euh, di leen ziar di leen euh, baalu ak ci nu mu ci événement bi. Mm-hmm. ndax xam naa ne am na ci ñu sonnoon trop trop trop trop sama staff ma leen di remercier di wax ni Sénégalais yi euh, Souleymane a ngi noonu. ayca ñi ngi lay bëgg ñun itam bu baax a baax ndeysaan doon koo xam ne wax dëgg yàlla il est trop même courtois loolu gën nañu intéressé ci moom doon nit ku baax koo xam ni euh, wax dëgg yàlla euh, sénégalais yi jox nañ ko euh, gëdd gi ci war surtout artistes yi nga xam ne ñu ngi liggéey te wax dëgg yàlla mu ciy def liggéey bu mucc ayib le fait que muy jël ay kopparam di ko ci def di defar ay trophées yi ni mel mu rafet loolu ngir bëggalee ko sénégalais ñun am nañ ci contentement de par ma voix tous les artistes du Sénégal te remercie ñi ngi am gàcce ñi ngi am vraiment ci sa jëmm ji di la kontaane bu baax a baax alors dañu bëggoon xam euh, euh, euh, lan mooy Raaya Music Awards d'abord. bon Raaya Music Awards c'est d'autre que la récompense de la musique sénégalaise. Hmm. comme on dit nit liggéey boo xam ni dafa yaatu. pendant un an nit bi bu liggéeyee bo at bi jeexee rek war naa am récompense mooy li nga xam ne li nga liggéey mooy fruit bi. moom mooy fruit bi quoi. mooy fruit gis nañu euh, bari barina catégorie yoo xam ni chaque année sax déjà dinañ gis lu waat mhm. euh, ci biir raaya euh, cette année ñu gis ni boole nga ci ay ay catégorie yu bari ba tax na ñu bëggoon xam yan catégorie moo amoon cette année ak ñan ak ñan ñoo jël li nga xam ni moom moo di raaya yi. Hmm, comme chaque année. Hmm. raaya dafa yaatu chaque année dañ koy yokk. Hmm. day am ay trophées yu ay trophées yu bees yu ñuy yokk ma c'est-à-dire ay catégories cette année on a onze catégories. il y avait le clip de l'année tube de l'année révélation de l'année euh, meilleur clip instructif euh, meilleur clip religieux chanteur religieux ak euh, les organes de presse. Mm -hmm. presse en ligne presse euh, presse écrit bi. il y avait aussi comment ça s'appelle encore featuring de l'année il y a bon en tant que tel y' a ça. y' en wax dëgg yàlla wax na euh, comme ni mu ko waxee wax dëgg yàlla euh, ñu kontaan ci loolu aussi euh, bokk na ci aussi meilleure émission talk show. bi ni mel tax na tey mënu ma ko fi invité ba mu jugee fi te du mu wax ci 11 13 bi nga xam ni ñoo remporté meilleure émission talk ñu bare dañuy wax naan ci biir raaya yi est ce que les votes existent bien vrai que ni ñun ñu ngi doon promouvoir li nga xam ne moom moo di vote yi tout comme moi ah yàgg nañ ko teg ci bande annonce yooyu mais nit ñi ñu ngi naan ay votes yi que ça existe loolu loolu lañ ci mën a wax ñi koy wax. Euh, vote yi sa existe bel et bien ku mu neex mën ngaa dem digital virgo nga demander sa ay vote. digital. virgo virgo. nga demander sa ay vote. ah dégg ngeen. je défie quiconque mën nga dem digital virgo nga demander sa ay vote bépp artiste bu ci bokk nga ne Raaya Musique Awards sama ay vote laa ñëw pour xool si ko. Ah! pour tous les artistes ak tous les émissions yi nga xam dañ leen nominé woon mën nañ dem digital virgo ñu demander seen ay vote dinañ leen woon vote yëpp. dañ leen vote vote yëpp. là moom defe naa ni <laughs> lu leer <laughs> naññi la ah loolu moom leer na naññi ci euh, sénégalais yi euh, bu baax a baax donc ci critères yooyu la nit ñi di gagner trophée oui les votes c'est ça représente 30 pour cent 30 pour cent D'accord. Et les membres du jury 70 pour cent. 70 pour cent parce que dans les normes dafa naroon am plateau digital boo xam ne ça représentait pour cent les 30 pour cent pour vote par SMS les 30 pour cent yi nga xam ne c'est les plateaux digital mooy euh, public et les pour cent c'est les membres du jury. depuis plus de vingt ans nga koy euh, doxal yow dong gisuñu ci partenaire boo xamante ni bu nit ñëpp xam la le pourquoi pourquoi doo dem à la rencontre des partenaires. bon chaque année on on part à la rencontre des partenaires mais comme Sénégal dafa am nu muy doxee tout ce que tu vois c'est c'est une sorte de lobbying boo xam ni peut-être soo ci bokkul doo mën a dem et que y a des yoo xam ne dañu lay exiger mën nañ la accompagner mais à telle fin. mooy que ni ñun tey ji li lay jox nii da ñuy jox en suñu artiste bi ñuy choisir moom ngay jox trophée et que loolu day décrédibiliser carrément événement alors je préfère liggéey li nga xam ne mooy li nga xam ne moo plus transparent pour tout le monde ñëpp gis ci seen bopp que dem liggéey ak benn sponsor boo xam ne dalay wax ne joxal trophée bi tel artiste ce qui est vraiment important j'adore ces mots euh, di ko dégg ndaxte artistes yi bare woon nañu loolu des fois euh, du leen dikkal ngeen jox artiste trophée am keneen ku ci mer ba bu dootu ci bëgg a bokk w mais xam nga àdduna noonu la demee unanimité suñu borom sax amu ko hmm. artistes yi Sénégal je artiste boo xam ne bokk na ci benn catégorie à la base dañuy wax non je préfère rester à la maison pour ne pas venir ndax su ma ñëwee su ma amul trophée gàcce lay nekk ci man mm-hmm. or que nomination bu xasee ba génn quand tu fais partie des personnes nominées pour le Raaya Music Awards tu fais partie des gagnants de l'année parce que c'est pour cela que toute personne nominée aura un diplôme de reconnaissance d'avoir participé au Raaya Music Awards mais j'allais l'amener donc ah, euh, ah. ci kaw loolu noonu am na ñoo xam toujours toujours toujours day ci liggéey bi moo même sa bureau bi ngay liggéeyee plus de 70 artistes à 5 80 artistes yoo xam ne ci ay catégories différentes donc pour ñëpp ñëpp ñëpp kontaan day xaw a doy war ku ci nekk danaan maa waroon gagné ndax ku ci nekk da ngay tu ci li nga nekk donc sant yàlla quoi tout temps nag dina am ay sànni xeer ay prix daal mais que sant yàlla rek un pour ñi nga xam ne ñoom ñoo di gagné yi ko gagné cette année ndax gis nañ xale yi bari woon nañu loolu artistes yi ko euh, a gañ félicitation laa leen di wax pour tous les artistes yi nga mhm. xam ni ñëpp ñi nga xam ne dañ leen nominé woon ci Raaya Music Awards laay félicité ba pare après félicité ñi nga xam ne ñoom ñoo am trophée bii nii parce que ñoom c'est pas évident que ni ñoo daqaway et tout et tout mhm. mais je pense que ni bri brillance bi ñu am rek moom lañ leen nit yi delloo nekkul ni Souleymane mooy joxe trophée tel ou tel trophée mais sénégal yi ñooy joxe trophée bi ñoo nekk les organisateurs nekk ci ginnaaw di daw de gauche à droite mais ñi nga xam ne ñoo moom trophée bi mooy sénégalais yi ñoo koy désigné ñi a xam ne ñoo ko war a jël ak ko a jël képp ko am jàppal ne sa liggéey leer na trop mais képp koo xam ne amu ko tamit xamal ni mën nga ko am et que chaque artiste boo xam ne euh, je pense artistes yi nga xam ne am nañ ko à plusieurs reprises bëri na. ñoo xam ne mën nga ko am at bi at bi di ñëw ah, nga. j'en ai entendu comme ku mel na Dieyla ah, ku gis naa ni ñoom am nañ ko à deux reprises. si si si Dieyla ñun ñoo ko joxe jox révélation de l'année. Mm-hmm. année bu muy nekk révélation cette année xoolal mu ñëw baa très fort am double trophée donc euh, liggéey moo yaatu liggéey nit da ngay liggéey ci li nga xam ni euh, lépp luñ la boole ci àdduna. parce que sa awards bi ngay gis nii. tous les artistes di nga gis ñu ko soofantal ah. mais dañ ko soxla parce que moo leen di propulser au niveau de l'international léegi nag dinañ ko soofantal ci sa kanam pour te faire comprendre que ni on n'a pas besoin de ce trophée mais suñu génnee à l'international lii moo leen di jaay parce que artiste da ngay am CV c'est pas am na publique sama sama dëkk am naa ñu may suivre am naa ñu may seetaan je suis meilleur sur Instagram je suis meilleur sur YouTube mais lan nga am sa dëkk ba pare c'est pas question que damay woy damay fecc wala jël naa lii wala mën naa lii nii mais est-ce que tu fais partie des personnes yi nga xam ne les awards ñoom lañ nominé au niveau de chez toi parce que sénégalais yi awards bu ñu leen nominé au niveau d'international dañuy daaw aw xam nañ comprendre nañ système bi mais pour au niveau d'interne ils vont essayer de se pour te dire que non je vais pas participer à ça ou ça mais ñoom ñëpp on am nañu soxla trophée bi pour dem à l'international moom ñu leen di def appel comme tout le monde rek di leen wax ñu ñëpp bay ci say wewu tànk. xoolal El Hadj Keita moom daa mën a kaf nee na ma lu tax El Hadj Keita amu ko. <laughs> waaw El Hadj Keita ren ba bokkul ci ñi ñu nominé euh, ah. ci catégorie yi. Ah. mais daaw bokk daaw bokkoon na ci ñu nominé. donc. artistes yi daal nañ gën a persévérer parce que ku liggéey ku ne di nga am trophée bii nii. yéen en tout cas ñoo ko moom. en tout cas lu ñu lu ñu lu ñu lu la. Euh, mm-hmm. ñun euh, ñi nga xam ne yow ne euh, sur la toile nekk di yëngu ci wàll wi ñi ngi lay gërëm ci li bu baax a baax a baax. on espère voir dëwën incha allah beneen beneen beneen ci beneen lieu maa ngi koy wax keroog naan bëgg nañ ko yóbbu King Fahd et pourquoi pas en direct nit ñi di ko seetaan. bon comme nuñ ko bëggee bëgg nañ ko di def en direct. mais euh, bon parfois tamit c'est trop compliqué parce que les charges deviennent de plus en plus. laaj ko laaj ko par El Hadj Ndiaye ngi nii Bruxelles moom Maram Ndiaye di la seetaan. dimbali ma wax leen ko ñu dégg ko. ndax ñoom lii da leen ñor wallahi azim. Euh, je je je le dis ah. bi mu ko gisee tak euh, Yaas. Euh, sama papa El Hadj Ndiaye daa kontaan lool mu ngi nii di ma seetaan du ma bàyyi ma wax lu dul dëgg hmm. sama yaay Mariam itam dafa kontaan lool ba am na lu ñu ma prévoir loo xam ne xam naa ne après naa la ko <laughs> lu ma lu neex loo xam ni yàlla na leen yàlla fay waxal leen wax leen ko nii dinañ ko directement la ko c'est la 2STV donc euh, dafay diis trop parce que amuñu beneen support bu dul ministère de la culture moo ñuy jàppale ça fait mm. ans yoo xam ne mu ngi ñuy. ah ñi ciy teg loxo moo tax ngeen di gis événement bi xaw a am tout changement. mais boo amul euh, sponsor yoo xam ne ñoo la jàppale. Mm. lii événement bi dafa. diis ak ak la ñëw incha allah. télé yi nag bon. Euh, j'espère 2S ñu nekk suñu ay partenaires leaders yoo xam ne année prochaine ñoom ñoo koy. incha allah jël nañu jël nañu engagement bi gërëm naa la. merci d'être euh, venu en tout cas kontaan nañu bu baax ci yow. merci beaucoup ñu bàyyi la nga tàggoog téléspectateur di wax yëpp di leen baalu ak ñi nga xam ne amuñu trophée ak ñi nga xam ne nekkuñu woon ci saal bi ak ñi nga xam ni ñëwoon nañ. ak ni mu guddee commencé ñu leen di baalu àq di leen jégalu ci yéex a commencé bi di leen wax ne beneen yoon dinañ teel commencé ndax sénégalais yi ñun yéen lañ fi nekkal musique culture moo ñu ñor moo tax ci loolu la xar suñu tànk tubéy pour yéen ñëpp ngeen gis ci seen bopp merci big up à vous. merci merci kontaan naa mën na dugg ci parc bi ñu ngi koy gërëm. Euh, c'était Souleymane euh, moom mi nga xam ne moom moo dirigé li donc euh, c'était vraiment pour vous expliquer comment ça marche le Raaya Music Award ñu ngi koy bu baax a baax a baax merci aussi à Prince Chéri Khadija Prince Book kooku nekk sama xarit bi le jeune xarit la ci boppam kon nag chérie Khadija lu ngeen dunu doyul euh, prince euh, mbokkum yaayu Khadija euh, prince le jumeau de Khadija ñoom ñaar nag ndeysaan yàlla yàlla fa leen cat kontaan naa ci merci à l'international ki nga xam di El Hadj Keita tous les bu wali d'ici là sax bu wali joué wul baara mu ni fay nekk moom moomu El Hadj Keita foofu ca baara sur la route des Almadies l'international le Neymar de la musique sénégalaise lu mu mën ci bal bi lu a a kontaanee très rapidement avant ñuy euh, dalal sunu invité de marque sunu invité d'honneur ñu dem xooli li nga xamante ni moom moo di clip bu bees Sidi Diop et ñu xool foofu la la doon j'adore cette partie merci beaucoup à l'international Sidi Diop actuellement disponible euh, sur YouTube ñu ngi koy kontaane bu baax a baax a j'ai le plaisir d'annoncer vraiment l'artiste de l'année l'artiste du Sénégal et de l'Afrique pourquoi de l'Afrique parce que ci Afrique tey euh, mennum xale bi moo ci gagné quatre trophées macha allah kii nañu ko bàyyi xel euh, te nañu xam ne musique sénégalaise wax dëgg yàlla fu mu mën a dem moom jëmmam ji war na ko fu mën a yóbbu euh, ndaxte xale la boo xam ni bi mu tàmbaleeg léegi hmm, génne lu ne rek sénégalais yi bëgg à trois jours clip bi muy doog a génne nii am na un million de vues trois jours seulement les sénégalais le les sénégalais l'apprécient les sénégalais am nañu yëg-yëg ak contentement ci boppam li ma gën a gis gëj a gis mooy bàcc ni mu heure affaire bi jot mu yow waaye lii la la nii eh, changement am na waaye man maa la koy jëlil ndaxte trophée yi dafa bari euh, donc indil ma trophée na trophée yi dem ci ginnaaw yaas na dem ci ginnaaw le temps ma leen di euh, ki nga xamante ni euh, xale la boo xamante ni elle est pétrie de talent très très belle voix j'adore cette demoiselle euh, euh, de par euh, euh, sa courtoisie je l'adore de par li nga xam ni moom moo di mën wayam maanaam talent bi nekk ci moom elle a une très belle voix j'ai le plaisir encore d'annoncer l'international qui se nomme tout simplement mesdames et messieurs chers téléspectateurs Jayla si c'est bon euh, Mister Grégoire ñu ñëw ci premier titre bi nga xam ne actuellement sa déchire ça cartonne donne euh, 3 millions euh, 1 et quelques vues à 3 jours seulement amis chers téléspectateurs c'est à vous si c'est bon Mister Gré man maa koy jëli 5 4 3 2 1 go. Ndeysaan oh la la la la la mu mën a way de. Machallah, une très très très belle voix de Guéila. xam naa ni euh, sénégalais yi actuellement ñoom ñëpp tamit toog nañu scotché euh, préparez vos vidéos euh, yi nga xam ne maa ngi la ko doon laaj léegi ci on sait chez vous wax ci jëmm ji di Dieyla waaye itam plaisir bi ngeen àndal di seetaan tey émission bi ni mel ñu am mbégte bu baax a baax Dieyla dalal la fii ci Parc des Princes mën nga pousse tuuti ñu xoolaale quatre trophées yi nga xam ne moom nga ko jël moom mooy xam nga danaa l'homme de l'homme de l'année moom moom mais moom mooy femme de l'année femme de l'année am nañu plaisir dalal la fii ci parc bi bàyyi la fële ci as nga nuyonteeg téléspectateurs yi mm-hmm. waaw xëcca maa ngi lay nuyu. di nuyu waa Sénégal ak képp koo xam ne rek yaa ngi toog du ñu seetaan. comme ni ma la ko waxee rek man fii sama kër la heure bu ma fiy hmm. ñëw damay kontaan bu baax a baax di nuyu a baax di nuyu samay soppee di am contentement bu rëy rëy hmm. mhm. en tout cas am nañu ñu itam a euh, tey ci direct bi euh, euh, ma signe ma xam li xew ci Facebook bi ñu ngi am mbégte ñu itam dalal la fii ci parc bi yow bi nga xam ne yow yaa di Dieyla mhm. am plaisir dalal la aussi ak sa quatre trophées mhm. déjà nga remporté ko fii ci Sénégal. Mhm. Euh, yëg-yëg bi nga am bi nga gisee quatre trophées yi boo yeewoo gis ka lan la doon. Mhm. xëcca nee naa la yëg-yëg bi dafa jéggi dayoo. Mhm. wax dëgg neex yàlla dama kontaan mbégte bu rëy rëy rëy laa am. ndaxte yombul nga nekk xale ba nga ñëwee ci milieu bi yàggul dara wax dëgg neex yàlla. nit ñi bëgg la ba mu jeex tey nga nga am sa quatre trophées yi. contentement bu rëy rëy la ci man heure bu ma yeewoo di ko gis damay gën a am mbégte te xam ni liggéey rek moo am solo lu ñu liggéey doyul. liggéey rek mooy fay. est-ce que xam nga ci sa génération yaa ci ëpp trophée. ndeysaan xam nga <laughs> ndeysaan ndeysaan simple elle est tellement simple j'adore sa simplicité mm-hmm. euh, moom Dieyla simplicité bi nekk ci moom euh, dafa euh, dafa jéggi dayoo bi ñuy njëkk waxtaanee moom mooy raaya musique bi nga xam ne jël nga ko ñaari catégorie la. Mm-hmm. ban ak ban catégorie la Dieyla jël. Mm-hmm. ba mu tax mu fop ñaar ñaari raaya yi nga xamante ni moom lañ ko jox barki moo Ndiaye foofu nga xamante ni moom moo di ca canal Olympia. waaw tube la ak meilleur artiste féminin de l'année. Ah. alors tube de l'année bi moom mooy euh, première euh, bi nga njëkk jël. Oh, oh, yow euh, bi la joxee tube de l'année bi est-ce que tu attendais à nga jël ko. ah waaw waaw. ndaxte gis naa man ni ma sénégalais yi def ak ni ñu ma bëggee te maa ngi baax dafa nekk son boo xam ne wax dëgg neex yàlla nit ñi dañ ko bëgg ba mu jeex donc euh, alors teel ñaari trophée kaw teel mhm. ñaari trophée yi yëkkati ko mhm. nga téye ko mhm. euh, mi moom mooy euh, tube de l'année bi mu jël tube de ah. l'année bi ban morceau la tube de l'année maa ngi baax maa ngi baax waaw ah, maa ngi baax bi dinañ ci ñëw léegi-léegi Grégoire donc tube de l'année bi la njëkk jël après beneen bi ñu ñu ñu defal la artiste de l'année waaw artiste de l'année nag nga nga nga ñu boole woon la ak ay artistes yu mag yu jigéen fii ci Sénégal waaw est que yow tiitoo ci woon. <laughs> noo tiitu ma woon ndaxte ku la boole ci ci catégorie boobu noonu boole la ak artistes yu mag euh, donc mën nga am yaakaar daal. Eh, comme eh, eh, sagam boole nañ la foofu rek artiste bu mag amul le talent n'est pas euh, mm-hmm. loo xamante ni ci sa mm-hmm. tu peux devenir âgé wala ko mm-hmm. am talent talent euh, c'est pas quelque chose boo xamante ni da ngay nekk mag. da ngay nekk mag wala xale daal talent yàlla moo koy. def ci nit yàlla koy def ci jàmm macha allah ñaari trophée yaa ngi noonu <laughs> yeneen ñaari yan la. Mm. yeneen ñaar yaa ngi nii. yi ñooy yan ñoom. best clip ak artist of the year so so ñu moom euh, artiste de l'année jox nañ ko deux fois. <laughs> ah mais kon lii dëgg la deux fois jox Dieyla euh, artiste de l'année. Euh. ñan ñoo la ko jox bii bal la. <laughs> bi suma juumul waa waa Duudu moo ma ko jox suñu. dudu ah mhm. moom mooy Women Awards bi ñu doon mhm. def. Mhm. Euh, bi nga xam ni euh, xale yi jigéen yu bare dajale woon nañ fa donc c'était vraiment euh, pour encourager les les femmes yi nga xam ne ñu ngi fii ci Sénégal nga jël ci best clip best clip bi ban morceau la encore. maa ngi baax. maa ngi baax maa ngi baax moom dafa baax <laughs> maa ngi baax moom toju toj na réew mi uh-huh. beneen bi moom mooy euh, euh, trophée bi nga xam ne moom mooy artiste of the year mm-hmm. Mm-hmm. catégorie bi bare woon na ay artiste ci mm-hmm. bokkoon waaw bëri woon na tamit bëri woon na trop wax dëgg neex yàlla mais sant yàlla ba ñu ko joxee alors qu'est-ce que ça te fait mën nga ko tegaat noonu balaa mu lay diisal trophée yi daa bëri loolu moo tax boo dul ànd ak yaas moom dëgg yàlla <laughs> dina war du toj mbala ñu jël ko sàcc ko am na ñu ko bëgg sàcc euh, ñu am ci plaisir Dieyla sa bi nga débuté léegi yàgg mais bëri nga trophée macha allah uh-huh. hmm? vas-y xësa loolu bu ma ko gisee daf may wan que ni euh, man liggéey ba dee rek moo ma war wax dëgg neex yàlla su ma xoolee lii mbégte bu rëy la ndaxte dama yàgg rêvé nekk nit koo xam ne nit ñi dañ may xam ci li may def ndax dama yàgg bëgg way tey ji yàlla def may woy ba ñëpp xam ma fu ma tourné Dieyla Dieyla mm-hmm. sant yàlla la daal bu rëyee rëy may dem bay gagné ay trophée donc man liggéey rek moo ma war lu ma liggéey doyul si on da nga gën a nekk xale mm-hmm. nekkoon di daan sa doole au niveau de Sen Petit Gallé on va revenir mm-hmm. un petit peu euh, ci sa carrière ni mu demee après nga génn ci euh, euh, dugg ci beneen liggéey boo xamante ni ba nga ko tàmbaleeg léegi yàgg naa yàggul mais vraiment tu en train de déchirer ci yan loxo nga nekk Dieyla waaw man moom maa ngi ci yor loxoy yaas sama manager. Hmm. man ak moom ñooy liggéey. waaw hmm. boobaak léegi euh, musique bi ngay def. Hmm. ñëpp a ngi naan euh, est-ce que. moom dina mën a foncer vraiment ci mbalax mi. Mm-hmm. dañuy gis lépp c'est afro. Mm-hmm. boo ñëwee ak beneen tube boo mm-hmm. xamante ni euh, euh, euh, vraiment. Sénégalais yi bëgg nañ ko. mais est-ce que on peut s'attendre à que mu doon mbalax pur et dur aussi. waaw waaw bu saf sàpp nee naa la xëcaa ñun musique la ñuy def amul lu ñuy bàyyi afro bi afro mbalax bi nee naa la duñ bàyyi dara ñoo ngi ci lépp incha te day léegi léegi rek incha allah dinañ leen mayaat mbalax bu saf ah, sàpp. non bu ñu ray nag de bu ñu ah. ah, sa titre bi nga mujjee génne nii playback trois jour gis nga uh-huh. sénégalais yóbbu nañ ko un million de vues est-ce que aussi succès boobu aussi yaa ko doon attendre ah waaw man nekk naa nit koo xam ne moom lu may def dama ci am njortu bu rafet wax dëgg neex yàlla te lu may liggéey rek euh, maa ngi ciy xaar daal mu rafet sant yàlla tamit bu baax ndax lu ma génn yàlla def ci sutura yi te damay jël njukkal bépp di ko delloo sénégalais yi ndax mën naa ni lépp ñoom la tey nu ma mel ñoom la fu jëy laa yegg ñoom la su ma doon def dara tamit te neexu leen du fii wax dëgg neex yàlla lépp ñoom laa koy delloo njukkal bi à nga bëri ay morom yoo xamante ne ñu ngi sur la toile di liggéey ñoom itam lii nga am ni yàlla def ni mhm. ñoom amuñu ko. Mhm. Euh, euh, lan ngay wax jeunesse bi nga xam ne ñoom itam ñu ngi lay bàyyi xel. Mhm. ndaxte quoi qu'on puisse dire képp kuy sa morom tey. Euh, rêvé na mel ni yow lañ nga leen di wax. bon li ma leen di wax mooy liggéey nekk ci bu baax a baax xam li ñu bëgg loolu rek moo am solo ak ngëm-ngëm bu baax. ndaxte yaakaar naa ne àdduna lépp ngëm-ngëm la loo nekk rek gëm ni lii gëm naa ko te dama ci yegg fii nii boo ko gëmee rek yàlla dala ciy jàppale yàlla moom li mu yor soxlawu ci dara dafay soxla nga ñaan ko te dafa bëgg ko gëm te boo gëmee rek daf la ciy fekk si donc luñ ko gëm rek doyul ñu nekk ci liggéey bu baax a baax ndax liggéey rek mooy fay wàllu concurrence bi ñuy wax euh, am na ci toile bi yaa mm-hmm. xale yi lan ngay wax euh, sa mm-hmm. moroom yi parce que euh, qu'on a l'habitude de voir que nit ñu bari dañ naan Dieyla am na ay concurrent yoo mm-hmm. xamante ni ay concurrente yoo xamante ni aussi ñi ci milieu bi lan ngay wax ñooñu est-ce que yow yaa ngi focus ci ay affaire de concurrence non loolu amul loolu amul xëcca ñun ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi ndax fu ñu toll dañuy déggante wax dëgg neex yàlla son bu ma génnee ñoom ñëpp ma félicité gisee ñoom tamit son bu ñu génnee dama leen di woo gis ci sama bopp donc ñëpp ay xale lañ li ma leen di wax mooy que ni nañ ñu ñaanal ndax ñu ngi ci yoon lu ñu ñaanal rek doyul ñu ñoo bokk nday ñoo bokk baay waaw mais dama leen faale bi euh, du leen faale mm. euh, euh, le pourquoi l'idée du ma leen faale déjà mm. way woowu nga xam ni mm-hmm. tey moo tax nga gagné trophée yi yëpp ndeysaan bon maa ngi baax dafa nekk loo xam ne mën naa ne actualité la lu xew la ci dëkk bi mm. et ñun comme que ñun ñooy waykat yi ñun ñooy waxal ñi mënta wax xëcaa damay gis nit muy yàq nit mel ni comme si dañ ko fay pour mu yàq nit amul solo àdduna amul solo. laay wax ko ca kaw amul solo. wala iñaan rek iñaan rek am dafa am ñu iñaan. <laughs> mi ngi euh, noonu li may xam na ko. dafa am ñu iñaan mi ngi noonu ah. te àdduna amul solo. Hmm. te nee naa la képp kuy def lu bon di iñaan wala ngay def yéene da ngay tardé rek doo hmm. avancé mukk. donc man ne dinaa ko way nit ñi dellusiwaat seen xel ndax yàqante bi amul solo àdduna loo gis da nga ko fi bàyyi dafay jeex donc nañ nañ delloosiwaat xel yi waaw te jéem a baax daal. sama xarit bi Leuz dafa bëgg na ma bu jëy laa ñëwee yaa ngi baax bi na ma ci ci le shop. vas-y le shop. nelaw ba yàndoo dëkkee lu bon ak lu ñaaw soxor. iñaan moo la kondaane doxal sa yoon du la sóoraale bilaay yow doo tarde lës yow yow doo tarde fii lépp ngi tolloo taloo noono bilaay bu leen wër dégg la ganima xool ba sedd fa mu toog kontaan na en tout cas xale baa ngoog wax dëgg yàlla euh, saf mag ñi saf ndaw ñi waaye itam képp ku ne ci génération am euh, bëgg ko lool loolu euh, mën nga ko indi euh, mu xool ko euh, yaas ñëwal problème bala nga bàyyi ma jël ko fii c'est la 2STV c'est la 2STV on peut se déplacer ah ayca jee tel tel yëf yi noonu loo ci bëgg def ko ci itam <laughs> on est en direct vraiment mais on est vraiment ravi également ci comportement wu sénégalais yi ni ñu ci toogee mm-hmm. di seetaan gré mm-hmm. bu fekkee ni on serait chez vous da ko amaat mën nga ma def signe boo ko amaatul ñu wéy ak moom sénégalais yi actuellement ñu ngi ni seetaan mm-hmm. sopp nañ ko lool euh, bëgg nañ ko lool ci sa yar euh, ci sa courtoisie mhm. euh, bi may wax saa su ak li nga xamante ni moom moo di talent bi nekk ci yow mhm. donc très rapidement ñu xool lan la sénégalais yi wax fi nga xam ni moom moo di ci sur les commentaires yi nekk ci Facebook bi bari na Dieyla mhm. vraiment chanteuse la boo xamante ni elle a du talent elle mérite vraiment de de de gagner tous ces trophées kontaan nañ ci moom ah bari na ñoo xamante ni ñu ngi lay fii sur Facebook bu baax a baax Kheucha jëy la félicitation macha allah ak mën a way baat bi daa neex. Mhm. elle est tellement simple yaru tu le mérite vraiment kooku Jalika Diedhiou la euh, donc macha allah lii du chance mérite la yow jëy la loo am mérité nga ko jëy la moom elle a une très belle voix et je le souhaite une la souhaite plutôt une très bonne suite de carrière moom moo l'homme populaire moo wax loolu Mansour ñi ngi bëgg naa jëy la ndax xale bu am jom la bonne continuation. donc am na ci ñu bare ñoo xamante ni actuellement ñu ngi sur Facebook di la mhm. euh, encourager encore une fois euh, lan nga bëgg wax tey sénégalais yi. tey uh-huh. lan nga leen di waajalaat loo xam ne uh-huh. déwén dinañ gisaat quatre trophées uh-huh. yoo xam ne Dieyla dina ko jël waaw di leen di waajal lu doy waar rek nee naa leen man ak ñoom dara du doy dara du yomb ndax man fu ma toll damay bëgg ñuy kontaan donc incha allah du yàgg dara dinañ dinañ indi album bi andi featuring yi nee naa leen man ak ñoom <laughs> waaw dara du doy gën a grand théâtre da nga commencé gis nga te incha allah léegi léegi rek grand théâtre du yàgg dara xëy nga ni ma xam daal loolu moom ma koy présenté par force. maa la wax waaw <laughs> ah yow yow maay présenté loolu. Ah, yow yow man ak yow du tey l'animateur de l'année face à la plus belle fille et la plus belle voix de la musique sénégalaise ça sera du lourd en tout cas. mi ngi noonu grand théâtre bi léegi nga annoncé ko. waaw léegi léegi rek léegi léegi rek incha allah te di ci woo waa 2STV te xam naa léegi lay doon. pop pop pop doo ko réccu doo ko réccu doo ko réccu léegi lay doon. <laughs> léegi lay doon incha allah. en tout cas am nañu plaisir dalaloon la fii ci Parc des Princes. Dieyla mm-hmm. boo amoon ak moom une heure de temps du doy. Mm-hmm. ndaxte xale la boo xam ne elle est pétrie de talent waaye lu mu gën a gàtt gën a neex nit ñi mm-hmm. ndax bëgguma mu soof nit ñi man dama bëgg mu yëpp leen di ñamal fii dem ñamal fële dem ñamalaat fële lii na def tour des médias c'est ce que je souhaite naka def en yaas uh-huh. ndaxte wax dëgg yàlla du lu ndaw lii lu ñu mm-hmm. war a euh, promouvoir la euh, sénégalais yëpp teg ci seen bët kontaan naa mm-hmm. merci d'être venu lan ngay wax sénégalais yooyu 27 ans bon di leen wax kontaan naa bu baax a baax di leen delloowaat njukkal ndax xam naa ne lépp lu jay la mer rek ñoom la xëcaa man ñoom aw ma seen fay wax dëgg neex yàlla di remercier tamit euh, sama sama papa gise bu baax sama yaay caba di nuyu waale sama yaay de passage tata Ngone di nuyu tamit yaa sama manager di la nuyu xëcaa bu baax yow moom ci staff bi nga bokk kontaan naa di nuyu waat samay soppe bu baax a baax xëcaa nag du ma dem te nuyu ma samay mbokk wax dëgg neex yàlla mhm. ñoom tamit kenn du yow maa ngi dugg ba kebe meer jàll ba péextaal di leen nuyu bu baax a baax sama yaay maman Soda wax dëgg neex yàlla gis naa ñaani di la ñaanal yàlla na guddal fan bàyyi la fi ba ci kanam di nuyu sama yaay tamit maam nogay kenn amul fayam aji màgget séeri sàmba na bu séeri maas ak ndeytaal awma seen fay maa ngi nuyu waa pex yëpp dégg nga gaañ yi am na ku mag kilifa gu mag gu ma message ni ma neel jëy bu mu monsieur changer staffam ndaxte wax dëgg yàlla euh, ki muy àndal gis nañ lu positif rek la koy digal te ba mu tàmbaleek moom ba tey euh, lu rafet la koy digal kon nag yaas na yàlla guddal sa fan wax dëgg yàlla euh, ku la la amiin yàlla na yàlla la xasaar loolu man yaas man aw fayam hmm. loolu moom wër na àdduna lu mu gis lu baax jëy laa la hmm. lu mu du nelaw ba yandoor comme ni ma koy waxee fu mu mi ci samay texte mi ngi ci samay son yàlla yàlla guddal fan bi tey di ko ñaanal yàlla ko fi yàlla bàyyi ba lépp li muy mbëbët ci man yàlla yéggale ko jërëjëfati tey itam di ngeen fi am beneen artiste boo xam ne gañe ci raaya yi mm-hmm. euh, ni ba jeudi incha allah dinaa leen di indil merci beaucoup ci ki nga xam ne moom moo jiitu moo tax ñu jëkke ko ñu mm-hmm. ngi di gërëm bu baax a baax merci beaucoup euh, ci équipe technique bi euh, du ma lim ndaxte temps bi moo nu xaw a waaye mm-hmm. gërëm naa ñëpp merci à toutes et tous et rendez-vous demain attendez sunu bees xam nga mm-hmm. ñun buñ tiktokee buzz kon <laughs> léegi léegi incha allah. loolu dafa léegi lay doon à tout de suite. wop.